salaamaaleykum soppe yi xarit yi mbokk yi doom yi jarbaat yi euh, àndandoo yi liggéey ñi nga xam ne dañu àndandoo liggéey yéen ñëpp maa ngi di gërëm di leen sant gis naa message yëpp ah, ñaan yëpp yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp jërëjëf jëf thank you so much merci beaucoup